waaw ma yee yeesalaat nuyoo yi ak ngërëm gi ci seen teewaay fii yéen ñi nga xam ni yéen a ngi liggéey ci presse bi di ko jagleel aussi mboolem ñi nga xam ni yeewi askan wi ak askanu Ndakaar ñoom la tànn ñu nekk ay mbër ci gox-goxaat yi war a nekk maire ci gox-goxaat yooyu rawatina ci dëkk bi nga xam ni moom mooy di Ndakaaru di ko jàllale ba ci ñi nga xam ni ci yeewi askan wi la nekk ñëw fekk jataay bi bi nag ñaari ko sabab li ci jiitu mooy xamale Ndakaaru askanu Ndakaaru ñan la askan wi fas yéene jiital taxawal ci jongante yi nga xam ni moom lañu ñu dëgmal dimanche ñaar fukki fan ak ci weeru janvier ci at mii ñu dëgmal waaye it ki nga xam ni moom la yeewi askan wi tànn moo war a nekk meeru ndakaaru ëllëg li ci topp mooy li nga xam ni mi rumbalaat fan yi ñu génn yëpp du bi nga xam ni moom la woo ki yeewi askan wi tànn def ko muy candidat war a nekk meeru ndakaar muy suñu xarit suñu àndandoo suñu doomi ndey Barthélémy Dias moo war a wuy ji nag ñu ne ko wuy boobu ngay wuy ji doo fa te doo fa wét looloo tax bi ñu dajee tey ñu ni yeewi askan wi mi ngi xamal askan wi ni élection yi ñuy dëgmal daañ ci dugg daañ ci bokk daañ ci jongante te bu soobee yàlla ndam li daañ ko am li nga xam ne nag mi ngi raam ci dëkk bu boobaak léegi gis ngeen ko gis nañu ko ñëpp dégg nañ saa yu jongante amee Macky Sall ki ñooñam dañuy wut ay pexe ba tànn ñu ñuy jonganteel wala tànn ñoo xam dañ leen di éliminer ñu bokk ci jongante bi wolof njaay nag dafa ni lu ëpp tuur te nit ki bu mënul ni suur na ñu wicc ñu wiccax ay loxo li nga xam ne nag moom mooy raam te ci ñag bi la jëkk loolu la ñu bëgg waxtaane euh, suñu candidat bi nga xam ni mooy Barthélémy Dias te ñi fi ñëw yëpp ñëw fi ndaxte seen frère la seen mag la seen càmmiñ la waaye suñu collègue maire la suñu candidat yeewi askan wi la loolu lañu ñu di duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba duñu nangu benn yoon ñu ñuy xub mbaa ñu ñuy tiital ndax jongante yuy jëm ndax biiru bi nga xamee ni yeewi askan wi tànn na Barthélemy Dias mu nekk candidat yeewi askan wi ci mairie Ndakaaru ñi nga ko nguur gi tey ñi ngi mel ni ñu jëfu ci seeni i kaddu ci seeni i ci seen i waxulin te leen ko teg ñoo ko teg seen bopp ndax du ñuy yaafus yaafus goo nga xam ni la ñu waroon a def wala nañu waroon a taxawee taxawuñu ko ba ñun ñi nga xam ni lu ñu sabab mooy soppi ndakaaru soppi mu ndakaaru liggéeyaat ndakaaru bu bees nit ñi am jam njàngi mi bënn wér-gu-yaram bënn loolu moo ñu tax a jóg ñu ni loolu bu ñu amee fu ñu koy waxee wala fu ñu koy jooyee nañu dem foo leen jooyee ko waaye du fii ba loolu moo tax ñu ni candidat yi nga xam ne tànn nañ leen ci gox goxaat yi muy fukk ak juróom-ñeent ak kandidaa bi nga xam ne moom lañ tànn ci ville de Dakar dara mënul téye bu soobee yàlla ñu nekk candidat te gañ ndam yàlla na ko yàlla def. Euh, li nga xam ne nag ñu ngi koy jéem yóbboo ñu teg ko ci suuf ndax li ñuy toppi Barthélémy Dias du dara dégg ngeen ni sax borom réew ci ay kàddu ay jamono mu ne am na dossier yu bari daf koo teg ci coñcoom waaye dossier bi xanaa da tegul ci coñcoom. ci ay baaraamam la tox ba jëlal jébbal ko justice justice bi sama xel di dem ci kilifa gu mag ñu ko doon woowee kii ñas euh, borom wal fajir Sidi Lamine Ñas daan wax sostis tey jii la baatam bi am solo li ñu gis sostis la ndax mbir moo xam ni léegi mu am fukki at ak benn bis bu nag ñu yëngal ko bis bu nag ñu yëkkati ko loolu dañu dafa doy dafa dal ba muy am ki nga xam ne tey jii moom ngan ko réew mi moo soloon ay dàllam dem ci kër këram di ko masawu di jaale ki nga xam ni ñàkk na fa bakkanam ba jàpp sax ni bu ñu amee kenn ku ñuy topp état wu Sénégal la ñu war a topp ndax police bu waroon taxaw àtte moo yaafu seetaan ba li am am nit ki nag duñ la topp fagaagal la nga tëddin laaj ni yas rek la war a am am na la waroon am am na keroog bu mu amee moom ci boppam ak ñooñam ñoo dem fekk ko fa mu toog ñëw def ko seen candidat mu nekk député bu baabaak léegi ñuy ànd ak moom waaye diiru ba mu yëkkatee kàddoom gu mag gi ñëpp dégg ko ni man du ma combine bëri du ma def yëfi cuune du ma def yëfi yof yoo xam dañ ma koy xeebe lañ ko sonal saa yu jotee ñu yëkkati mbir mi naan kaay wuy dégg nañ ko demb ci conférence de presse bu mu wax lam ci wax yëpp jaratul ñu ci dellu si li wër te wër mooy yeewi askan wi ilaal moo am candidat bi gën a rafet bi gën a taaru di gën a nekk góor di gën a neex di ree di gën a coofe ku am candidat bu mel ni na ma ko wax Barthélemy Dias du candidat yeewu askan wi rek candidat wu askan wi la candidat wu ndakaaru la candidat wu senegal yi ci biir Sénégal yi ak yi ci biti moo tax ñanu yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla na yàlla yàggal taxawaayam moo tax ñu leen di woo yéen ñëpp ëllëg incha allah ca tribunal ba ku ñu fa bucc ni ma. ku ñu fa dëgg ku ñu fa dëgg ñu ni Mbassa. nañu wuy ji nañu ànd ak moom wuy ji moom la ñuy woo waaye ñun la ñuy woo woowuñu Barthélemy Dias démocratie la ñuy woo woowuñu Barthélemy Dias Sénégal la ñuy woo woowuñu Barthélemy Dias Ndakaaru la ñuy woo woowuñu Barthélemy Dias Yewwi Askan Wi la ñuy woo ñun ñëpp na ñu waajal dem wuy ji taxaw tem te xam ne li ñu moom ñoo koy jël suñu bopp asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu